waay fii xal sa xol ah original neexal bu te am na original pur jus de fruits Sénégal ka fay kan ngi yegsi na fay say facture moo ci gën a local la ñun ñoo moom di ci soññu Sénégal yëpp ñu consommer ko taxaw yenn combat yi mm. yàgg naa taxaw vraiment yàgg na taxaw yàgg na taxaw yi fi des quoi yi sës ok njëkk a taxaw et puis jaadu na sax de pour man de Lamine parce que saison bi daa a saison bi ñu génn yow Lamine mm-hmm. Modou Anta kañ la bëre woon novembre vingt quatre novembre xam vingt cinq vingt cinq novembre waaw ah. bañ ci novembre bi kuñ ci teg douze novembre Tapha Tine waaw bañ novembre cinq novembre 5 dafa am 12 am. 5 dafa am waaw 19 19 moo nekkoon si Talla Degueur. waaw novembre 12 novembre moo nekkoon Tafatine. ak Eumeu Sène waaw ah sa waa ren boo xoolee. saison bu garaaw la ñu am saison bu am. bii nii am chance am le mu bëre. ci même pas mois ñaari yoon. Mm-hmm. te loolu boo xoolee gis na am ci làmb. nga bu njëkk daaw am. tenor yëpp ay benn combat benn rek dara même saison Ada Fass bëre ci Gris Bordeaux bëre ci même jour Balla Gaye de bëre ci waaw ñoom guy gi non ténor yëpp a bëre ah, Ama Baldé ren ren dafa mel ni ñëpp a bëre ha ah? ñëpp bëre bëre ah, na waaw ñëpp Bombardier bëre na Bombardier bëre ci la ga gën waaw la ga bëre na la ga bëre na mbër yu bëre bëre ñëpp bëre tey boo xoolee Modou Lo bu teelee bëre ci mois de novembre bi est-ce que mënul bëre waat ci biir saison mais li musul am de benn saison VIP yëpp bëre musul am de wala am na ku bëre ren ren ñaar bi bëri nañu mais loolu mosul am kon. waaw kon neex lañu kon saison bi mën nañu jàpp ne mooy meilleure saison. waaw ah man fii passé am ci roi des arènes ñaari yoon. am ci comme par exemple alburax ni ñuy tëggee. benn jour ñu boole ci ay plus de six grands combats. innovation yëpp ay innovation innovation am solo am na ci. parce que xam nga tey affaire euh, empereur bi ñuy wax nii. Mhm. pour man mhm. loolu. comme li Modou Anta posé léegi Papa Sow. Mhm. am njàngat la war a doon. ah ci la roi des arènes bi ñuy wax. ñu valoriser ko. loolu nag du sax promoteur bi pour man. du sax promoteur bi ko sant promoteur bi de. boo tëggee mën nga koo bañ a tëgg. góor a s'il vous plaît gis nga loolu. Mm-hmm. du promoteur bi sax laa koy sant. loolu. Mm-hmm. tey maanaam au niveau du CNG ba dem ministère de sports ñoom ñoo war ñoo ko war a jël. valoriser ko parce que tamit nu waaye mën a wax mooy mm-hmm. ki nga xam ne mooy a Ndiaye dafa wane foofu benn signal mm-hmm. boo xam ne bu ñu war a aw la ah parce que tamit mënoo maanaam roi des arènes boo ko doone normalement sa waay am na yu mu war yu ko war a gunge dëgg mm-hmm. parce que mu ngi mel ni nga jël coupe d'Afrique am na ah lu lay topp te loolu ku koy def kaafa koy def wala FIFA koy def wala maanaam ligue sénégales de de football moo koy def ça veut dire que ministère ba la ko commencé ci ministère ba ñëw ci CNG ñoom ñoo ko war a valoriser te man dama jàpp ci combat bi ak Papa ak Modou Lo ci la war mais bi ñu koy def bu njëkk est-ce que nekkul woon fédération waaw bu ñu koy def na wax ci wax waaw moo tax ñu war Lamine état continuité la tey ci ayog bira lañ valoriser roi des koy bind ba ilaa mi di waaw am na ci loo mi cooli bari na mais lim fi bàyyi lim fi bàyyi ba ko te production bokk parce que si ayog bira tey supposons la VAR am mm. VAR bu amatoon tey combat Modou Lo Ama Baldé mm. Mm. buñ joxoon joxul verdict ah. te ñu bëri te leerul seen histoire da koy bind nag bu biraa demee danaa tey avant ñu dugg si sujet biraa sax man dama waxoon à chaque fois ne keroog wax naa ko président Gora Ndoye mm. sama xalaat bu su ma sañoon tey comme ni Babacar wax CNG moom moo jël ay matukaayam responsable mm. euh, valoriser le droit des si kaw nan mm. CNG pourquoi waa ma ne mbër bu nekk droit des arènes CNG mooy yor sa licence mm-hmm. mooy nekk sa manager mm-hmm. moo lay di wutal ay combat chaque 3 mois chaque 4 bu pare démembrement état la CNG tey bu demee tey am lettre de recommandation boo xamante ni ministère des sports bi ñoo ko mu dem si ministère de l' nga xamante ne day jóge foofu noonu ñu ne ta port autonome de Dakar day sponsorisé le roi des arènes chaque fin de mois fa am benn salaire u 5 millions wala benn salaire u 1 million boo xamante ni tey 10 pour cent bi CNG la jëm société nationale yi nekk Sénégal yëpp tey sponsorisé le roi des arènes tey ñu ne tey peut-être Catalina bi mu ngi ci làmb ji mu ngi jàppale làmb mu ne ah man kat le roi des arènes maa ko yoroon ration boisson ba keroog muy wàcc. keroog muy wàcc waaw ETDR ne kat comme ko si la ji la. man maa yoral loolu roi des arènes tey hmm. kër gu am tey maa tabax wala maa koy tabax ñu ne hmm. tey mu kat le roi des kat hmm. ñoo koy yore ravitaillement yére ak njabootam yëpp pour man noonu la ñuy revalo noonu la ñuy valoriser li nga xam mooy titre roi des arènes asida li def c'est bien beau parce que dafa valoriser titre couronne bi moo ah tax empereur bi jur coow comme doon yow ko am dafa neex dinaa la defal lii dinaa la defal lii dinaa la defal lii te tey comme si daa tey képp mooy tedd ci lamb waaye sa bëgg-bëgg mooy nekk roi des arènes mm-hmm. kon titre roi des arènes pour man tey war a ah nekk lu ñuy oyofal mm-hmm. pour man man dama si mm-hmm. interpeller le CNG yi na loo xamante ni doo toog mu ñëw yow yaa koy dem uti ji yaakaar naa kenn du gis tey jii le roi des arènes nga jóg dem di uti ji partenaire parce que tey comme ni mu waxee port autonome Dakar mu ngi fi. ay société nationale mu nii le CNG li ñu war a njëkk def mooy li Boucar wax ñu woo la Modou Lo le roi des arènes mm-hmm. valoriser le roi des arènes bi mm-hmm. ñu xam ni roi des arènes bi léegi valoriser nañ ko mm-hmm. utal ko tamit lu ñu ko booleel muy ay koom-koom parce li mu wax Aziz li mu def nii mais

organiser ni 24 lan no ah. waaw ba mu passé. mu organisé ko comme ni ko Makan hmm. organisé. Hmm. comme ni ko Ligue ni ko laay organisé. nga xam ne après chaque combat royal. dama lay wax rek CNG moo ko di organisé. non am priorité di organiser le combat royal. bis bu as ay mu ne kat pour nga bëree combat royal. di di peut-être chaque chaque chaque six ñu tànn quatre adversaires mhm. parce que sax duñ ko élire force adversaire ñoo ko wutal ko moom roi mu tànn mhm. nga xam ne CNG mooy ordi mooy eldi organiser le mais valoriser ko a liggéeyal mhm. CNG tey am na liggéey yoo xamante ni daf si liggéey tey am na ko CNG tey am na seen YouTube am boo xamante tey war na ko gën a liggéeyaat mais CNG li leen gën lor mooy bénévolat bi ñuy gëmloo nit ñi te bénévolat boobu pour man dañ ko yaa ngi dugg dina ko valoriser parce que xam lan moo tax jom jaay tax ak concurrence bi xam nga andi na fi empereur mu bëri fii détail lool bëri fii coow. Mm-hmm. gaa yaa ngi valoriser nii nangam gaa yaa ngi bàyyi euh, roi des arènes nii. Mm-hmm. ku ñëw rek organiser baay mu dem. Mm-hmm. moom tey bu ko organiser woon. def ko nu ko ken deful est ce que bu boobaa du bippe wala du sase. parce que tamit làmb ji kaay ma wax la bi bari na mais comme man li may wax chaque jour man rivalité ak ay yooyu sama yoon newu man gis nga lu ma war a wax. ki may jox ma lekk wala ma naan sax mënoo ma koo teree parce que mm-hmm. loolu laa gëm mm-hmm. comprendre nga man sama wërsëg man maa ko yor mais damaa gëm ne tey roi des arènes Lamine li ma waxoon sama émission ba laay waxaat war nañ koo organiser noo xamante ne ni valoriser noo xamante du jafe du jafe mooy que tey Siteu bu fekkoon ne roi des arènes bu nekkee roi des arènes képp kuy bëre moom dañuy dagg sa kase pour un pour cent wala deux pour cent da nga koy nangu comme mm-hmm. par exemple Siteu ñu ne buñ la fayee soixante millions cinq cent mille wala un million sakkase dañ koy teg dañ koy teg prime de roi des arènes. Mhm. parce que yow yaa bëgg. Mhm. dañuy dagg ci yow un million boo daanee. Mhm. da nga koy jël boo daanoo. roi des arènes moo ko moom da koy nangu. comprendre nga. promoteur bi organiser roi des arènes. ñu ne ko da ngay teg kasewu deux cent mille pour roi des arènes. CNG bi ñu ne ko da nga ciy teg cent cinquante mille wala deux cent mille pour roi des arènes. parce que CNG bu ko ci tegee. du metti parce que Modou mën naa bëre ba pare ñu dagg ko deux millions kon bu ci tegee deux cent mille du metti est-ce que yaa ngi may dégg bu baax. Mm-hmm. loolu bu ñu ko calculer ñaata lay doon. tey par exemple tey ku ci mel ni euh, Ndiaga El Capo bi nekk fële ne doomu sëñ Modou Niabi. Mm-hmm. ñu ne ko roi des arènes bii di ñëw kat. Mm-hmm. yow yaa war a andi euh, pareeru or boo xamante bi nii bu daanee soxna si moo ko moom ak doomam wala ak yaayam. Ndiaga danaan d'accord parce que roi des arènes dafay dem def fa interview. interview bi mooy waral mu jot pareeru or bi. ak euh, seen beeg ensemble bi yëpp. pourtant njaga da ngay nangu. Mm, te loolu comprendre nga ànd moom dem ca Ousmane Sy jasinaire mu toog def émission. Mm. mu yëkkati lu war a mat dix mètres jasinaire wala vingt cinq mètres jasinaire teg si table ji. Mm. yooyu yëpp nga dajale ko nekk léegi jouru roi des arènes bi jouru combat royal bi da nga koy teg. Mm-hmm. bu Modou daanee da koy jël yóbbu bu Siteu daanee da koy jël yóbbu. tey promoteur bi nga xamante bi nii ouverture saison premier octobre. Mm-hmm. boo doon ko jëlee cinq cent mille nga teg ci table ji. Modou Lo roi day bàkku si da koy def. même Modou du bëre de. mais ah, day bàkku si bu bàkkoo ba pare ñu jox ko mille mu taxaw wax. Mm-hmm. fin saison buy tëj ku mën a organiser ñu ne ko roi des arènes day bàkku si. Mm-hmm. tegal 500000. mu ñëw baa ko defee affaire am def discours am def pourtant kon xoolal ouverture am 500000. bu saison di tëj wax ah, ah, mhm. lépp dañ ñoo xamante ni bëgg nañu fu ñu wanee tey seen ay produits te amuñu ko. amuñu ko te tey ku sañoon tey Modou Lo publicité la tey sa ah, produit. ku sañoon tey ji xam nga Modou Lo taxaw ci sa place. mais mais mais mais publicité yi fi Modou Anta wax nii dem ci ñaa Njaga ñaa dem ci Ousmane Sy dem ci euh, nu mu tuddati paa bi Asnaw Ndoukoumane. mais day fekk mu liggéey ak promoteur bi su liggéeyul ak promoteur bi tamit. moo tax man ne la moo tax man ne la loolu moo tax man ne la loolu xoolal tey ñi ma fi lim ñëpp. waaw promoteur yi xam nañ leen. waaw mais su fekkee liggéeyuñu ak promoteur bi tamit loolu du yomb de. moo tax man ne la moo tax man ne la moo tax man ne la moo tax man ne la comme Coupe d'Afrique tey ni ko CAF di organiser. coupe du monde ñu ne FIFA. waaw lépp daal bu bu boo toog man dama gëm ne. combat royal fi ñu jëm. waaw combat royal le CNG moo ko war. moo ko voilà xanaa loolu comme ni muy organisé drapeau chef d'état waaw drapeau chef d'état combat royal le CNG. Ah, rek ñu war dañu ko war ñooy appuyer rek. waaw même CNG mën nañuy fay roi des arènes. mais CNG pour ñu organiser combat royal il faut ñu accepter ne roi am na. am na moo li may wax parce que. mais loolu dara tey bira mën naa xëy woote ne dañoo bëgg ñu waxtaan ci roi des arènes Lamine Lamine tey biraa bu xëyeen woote ne dañoo bëgg ñu wax ci roi des arènes kan moo koy bañ. kenn du ko bañ tey moom bu ne chaque ouverture saison maa yore roi des arènes cinq cent mille. Mm. kon bu boobaa dagg bi gars yi dootuñu ko wax ñëpp dañuy xëccoo ji pour nekk roi des arènes. Mm. chaque saison buy tëj maa ko yoreel euh, cinq cent mille. Mm. lépp ci enveloppe lay doon ñu jox ko ko. dagg bi dootuñu ko wax parce que bu boobaa da naan dagg ñu ne non roi des arènes bi day fayeku. chaque ouverture saison day am cinq cent mille. chaque saison buy tëj day am cinq cent mille. comprendre plus que sax dagg bi ñuy wax yooyu noonu mu am fu mu dugg parce que ay waay féexal sa xol ah original neexal bu te am original pur jus de fruits. Sénégal ka fay kan ngi yegg na fay say facture moo ci gën a gaaw. KPR transfert local la ñun ñoo ko moom. di ci soññu Sénégal yëpp ñu consommer ko.